Ndiol Rock Team donc Mr Ndiol sa sa bis bi sorti album bi lan nga ñu si mën a wax quoi. waaw li ma leen si wax moom mooy li ñu si doon xaar rek ah mooy woote nit ñi wuy suñu ñu ñu présenté leen suñu projet. mooy album bi nga xamante ni toog nañ ay at nekk si di ko job donc euh, mooy loolu euh, kontaan nañ torop mooy nit ñuy ñëw seen wuy si présenté nañ leen tamit euh, projet bi et que gis nañ ne carrément donte tey conseguñ ko globalement mais liñ si jot a ñam affaire bi intéressé na leen donc partagé nañ tamit ak journalistes yi nga xam ne ñoom ñoom fi teewoon am ay question wala ay affaires yu ñu war a donc c'est nice quoi alhamdulilah dañuy gën a push up communication ok dañ naan enfin parce que job bi yàggoon na donc tey ngay wax tey mu génn tey parce job bi yàggoon na job bi yàggoon na tey lan ngay wax ni tey comme que génn na tey waaw mooy mooy fas jom bi mooy ñëwaat rek fas jom bi mooy ñëwaat mooy que xam nga euh, depuis album bi su génnee job bi si lay commencé dañuy wax alhamdulilah mais liggéey bi mi ngi soog a commencé donc dañuy gën a yokk job bi rek loolu kese la quoi waaw ok gis nañ nit ñi wuy si nañ la euh, artistes yi wuy si nañ la surtout les grands qu'est-ce que ça te fait gis euh, mbooloo bu toll nii ñëw wuy si la tey sa sorti album. waaw waaw loolu moom ça m'a beaucoup motivé parce que nga woote nga nekk si benn génération boo xamante ni peut-être am na ñoo xamante ni buñ la woowoon rek doy na comprendre nga ah, ah. mais dañuy déplacé wu ñëw bu ma limee damay juum mais ñoom ñëpp vraiment ñoom ñëpp. ku ci nekk ñëw nga taxaw assisté ko mu nekk affaire bu nice condamnation trop trop trop sincèrement maa ngi remercier tamit ñëpp ñu fi teewoon rek su ma limee damay jóg waaw ok mu nekkoon njool sorti albumam mr njool fas jom ñu nekkoon fii au niveau de la payette ak géejuwaay info point com donc resté connecté ñu leen jox dig dalee ba beneen yoon merci